أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ci kattanu borom bi subhanahu wa taala tey ñu ngi jël xissatu ayub alayhi salaam ayub ibnu ishaqa nee na kaana rajulan min ar-rum وهو أيوب ابن موس ابن زارح ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل سرين بتود ابن إسحاق نينا أيوب كبوكون تشوا روم لا نينا ku tudd maws mooy baayam mawsu zaarux mooy baayam zaarux ays ays isxaaq isxaaq ibrahim ibrahim xaritu yàlla keneen ku dul ibnu isxaaqa nee na huwa ayub moom tamit définition bii la ko jox ibnu maws ibnu rawayl ibnu ays ibnu isxaaq ibnu yaqub wa qila gayru zalika fi nasabihi am na leneen yeneen wax yu ñu wax ci askanam waaye ibnu asakir moom tamit kenn ci boroom xam-xamu histoire yi la nee na yaayu luut yaayu ayub doomu luut la alayhi salaam wa qila kaana abuhu mimman amana ibrahim nee nañ baayu ayub ci ñi gëmoon ibrahima la bokk alayhi salaam ban bis la ko gëm yawma ulqiya fi nnaar bis bi ñu jàppee ibrahim sànni ko ci safara ja yàlla musal ko ñi ko gëmoon ci jamono boobu ndax kéemtaan boobu nee nañ baayu ayub ci la bokkoon waaye mbokk jullit yi wal mashhuuru li siiw ne riwaaya bu njëkk bi lu ñu njëkk a nettali mooy li wér ne moom daa bokk ci njabootu ibrahim alayhi salaam moom ayub ci njabootu ibrahima la bokk lu tax loolu lañ jàng ci alquran liñ jàng ci alquran yàlla nettali ñu ko mooy ayub ci njabootu ibrahima la bokk borom bi subhanahu wa taala moo ci quran mu ne wa min zurriyatihi daawuda wa suleymaana ayub wa yusuf wa muusa wa haarun wa min zurriyatihi bokk na ci njabootam njabootu kan ibrahim yonent buñ naan daawud yonent buñ naan suleymaan ak kuñ ne ayub ak yusuf ak Musa ak Haarun yàlla nee na ñii ñëpp ñu lim njabootu Ibrahima lañ borom xam-xam yi nee nañ damir googu nekk ci wa min zurriyatihi haa googu ñu ne aidan ala Ibrahim ci Ibrahima lay dellu duuna nuux ñu ne du nuux Ibrahima la kon fa saxiix li wér moom Ayub min sulalatil ays mi ngi bokk ci askanu ays ibnu ishaaq doomu ibrahim alayhi salaam su ñëwee ci soxnaam moom ayub ñu ne ismuha layya bintu yaqub ñu ne turam layya la woon doomu yaqub wa qila rahma am na ñu ne rahma la tuddoon kon ayuba ngi noonu lenn ci borom xam-xam yi wax nu mu askanoowee ak nu mu bokkee ak ibrahim alayhi salaam nu mu bokkee ci njabootu ibrahim ñu ne kaana fi fi bilaadi xawraan nabiyun karim ismuhu ayub ñu ne am na benn dëkk ci dëkk yi benn réew ci réew yi bu tudd xawraan wala xuuraan benn yonent bu tedd bu tudd ayub mu ne wa kaana annaas wa ma zaalu ila yowmina hada yadrubuuna bihi almasal fi sabr warrida bi qadaa illahi jalla wa ala mu ne jamono ju passé ci li ñu xam ak ci lii ñu toll tey génération bu ñëw di nga waxtaane mbirum ayub alayhi salaam dinañ joxe ci moom modèle ni mu muñee woon dem nañ sax ba ne moom mooy baayu muñkat yi moom ayub alayhi salaam ndax muñ gu mu muñoon ñépp ay joxe ci moom modèle néew na boroom xam-xam bu waxtaan ci mbirum muñ ba pare te tuddul ayub néew na téere bu ñu bind di wax ci mbirum muñ ak nattu te waxuñ ci mbiru ayub alayhi salaam ci ni mu muñee woon yamu rekkoon ci muñ waaye nangu ndogal yàlla subhanahu wa taala yàlla teg ci kawam waaye mu takku kemm loolu yàlla natt ko mu nangu ko yemul ci nangu ko waaye mu muñ ko kaana ayub alayhi salaam rajulan kathirul maali ayub nit la woon koo xam ne li ko yàlla may ci alal dana gàññ alal moom lim ci yor lim jeexalu ko maye jeexalu ko lu ne gàññ la ci yor ndax yàllaa ko jox te yàlla moom comme moom mooy ku giijal ku mu jox rek nga doyal yàlla moo ko jox ba mu doyal ataahu llahu jumlatan aziman min as-sarwa li ko yàlla mayoon ci am am kenn xamul nu mu tollool foo ko natt wees na ko ci am am faqad an'ama allahu alayhi min sa'iri sunufil anwa an'ima an ni'ma léeg-léeg nit bu ko yàlla di may ci alal da koy may xaalis kese wala yàlla may ko ay doom kese wala yàlla may ko suuf kese wala yàlla may ko lenn bàyyi lenn amma ayub loo xalaat rek yàlla may na ko lépp la matale moom dafa am ay doom am alal am suuf am ay jur am lu ne gàññ dara du jeex lépp da cee am ba doyal ndax yàlla moo ko jox wa fi muqaddamatiha al aradi al muttasia al xisba nee na lim yooyu xéewal yooyu buñ la ko doon limal li ci jiitu li ko yàlla may mooy suuf su ne gàññ bu yaatu ay hectare kilomètre ay la ci yor loo xam ne du jeex ba pare loolu xis ba loolu dafa nëtëx loolu dafa naat maanaam tool yi yépp a normal benn amu ci xaaxaam ak garga mboosi lépp dafa naat wa kaana lahu min alxayli maa yudhisu al absar li mu yoroon ci ay fas nag bët bu ko xoolee rek tiit su nit xoolee li ko yàlla may ci ay lu muy war su ci sa bët tegoo rek da ngay sajj ndax ni mu bëree ci ay warwaay ay fas loolu la ko yàlla mayoon moom moom ayub kama kaana lahu aadaadun wafira min al ibil wal baqra nee na fekkee gëléem yéeg nag yi nag la ilaha illa allah loolu moom daanaka mën nga ne gëléemam yi bu ñu génnee dootoo gis suuf si nagam yi bu ñu génnee dootoo gis suuf si ñuy dox lu ñuul rek ngay gis mu ne kukk ak poussière ñax mi ñu doon dox sax dootoo ko gisati ndax ni ñu bare amoo bis bu xëyee génne gëléem yi ak fas yi ak nag yi kenn dootul gis ñax lépp ay ànd ñuul ndax ni mu bëree woon yàlla mooy maye yàlla moo ko may yal noonu yàlla may wa saairul maasiya nee na yemul ci lool de maanaam lépp luñ naan jur nit di ko yar mu koy amal njëriñ ayuba li mu ci yoroon tiitloo na bët gëlëmloo na xel wa kaana ayub alfu saatin bi riaatiha nee na li mu yoroon nag ci ñuy toppatoo jur yooyu nag yi gëléem yi xar yi béy yi fas yi li mu yoroon ci ay nit lu koy toppatoo loolu moom kenn mënu koo lim ci ay nit kenn mënu ko lim ndax ni mu baree mu ne naahika doy na la nag sax bil abid alladina yaqumuna bi riayati al ard wa xidmati al anam nee na buñ bëggoon dem kër ayub ñu ne nañ xool ñan ñoo nekk ci tool yi nan xool ñan ñoo nekk ci fas yi nañ xool ñan ñoo nekk ci nag yi nañ xool ña ah nañ xool ñan ñoo nekk ci kër gi naan naan loolu kenn mënu ko contrôler kon daal ayub mbokk yi benn waay la woon boo xam ne yàlla bi mu koy jox dafa ne sëq rek comme ni yonent bi doon wax hadis bi ne yowmal xiyaam yàlla day ñëw safara rek daal di sëq ñaari loxoom ba mu fees yàlla daal di koy sotti biir aljanna Aboubacar mu ne yonent bi wax yàlla na dolli Umar ne ku moom doy na xanaa xamoo loxo yàlla nu mu toll kon moom it yàlla da koo sëqal rek ne ko ayub mu ne ko am mu ne ko am kenn xamul li nekk ci ay nit li koy liggéeyal ci ginnaawam kenn xamul nu mu toll li muy dundal kenn xamul nu mu toll ndeysaan ñooñu ñooy ñi nga xam ne ay jaam lañ di ko sàmmal lépp di ko defal lépp di ko liggéeyal di liggéeyal jur yi wa kaana ayub alayhi salaam waaye nag ayub mbokk yi du hasard mu am lii lu tax barran ku baax la woon ku mokk la woon ku déggaloon boroom la moom la taqiyan ku ragaloon yàlla la raximan ku amoon yërmande la ñett yi bu ko nit amee jeexal nga ci àdduna raw nga àllaaxira gis nga yonent yi bari na bu leen yàlla di tagg baat bi mu njëkk a wax ci ayub moom lay wax bi yàlla di wax is isa baat bii la ko yàlla taggee bi yàlla di wax ban yonent ku gañe am xisnul muslim ban beneen yonent bi ko yàlla tagg dane barran yaxya fan surtout mariam kon ki am na benn hisnul muslim dama paa ba jox la suñu hisnul muslim yow nga indi téere yi kon gis ngeen yonent yi bu leen yàlla di tagg souvent baat bi lay indi mu ne lan ñu mokk lañu woon ñu baax lañu woon ragal yàlla am yërmande yuxsinu ilal masakin allahu akbar néew na tey borom alal boo am alal di rafetal ci miskin yi waaye kii wa kaana yuxsinu ilal masakin danaan rafetal ci miskin yi gis ngeen jaamam yi ni ñu bare ñi koy liggéey ni ñu bare bu xëyoon suba ku nekk dalay yenn saako lu ñuy lekk mu ne la demal bu jeexul bul ko delsi bu jeexul bul delsi demal ba mu jeex joxal nit ñi koo gis na lekk na naan nit ñi ni ñuy bari noonu la noonu la leen di tasaaree tool yi li ñuy bay yëpp daanaka nit ñee koy lekk xar yeeg lépp li ñuy génne ci nit ñi lay delluwaat bu xëyee rek day wax day wax ñi koy liggéeyal ku nekk na yenu saak ñu dugg ci biir dëkk ku ñëw indiwaat sa saak danaan la yenu ko nga dellu bu jeexul bul fi ñëw ku dem saak bi jeexul danaan la dellul bu saak bi jeexul bul fi dellusi demal ba mu jeex nit ñi am na ñu lekkul wër leen fépp na ñëpp lekk moo tax ñu ne ku yërëmoon miskin yi la ndeysaan te xam ngeen ne miskin ku jar yërëm la du hasard yonent bi naan yàlla yàlla nag ma dundal ma nekk miskin yàlla nag ma rey ma nekk miskin boo may dekki ëllëg yàlla nag ma dekk ma ànd ak miskin kan mooy miskin miskin mooy kan ah miskin mooy ku ñàkk taalul loxoom di ñaan miskin mooy kan ah ku am dégguma bu baax de koo xam ne li mu am doy ko mooy miskin koo xam ne bu añee du reer bu reeree du ndékki kii mooy miskin ñaata yoon ngeen jàng ci alxuraan wala yahuddu ala taamin miskin ñaata yoon ngeen jàng fa amal yatima ah fa amal saaila kon yaa ayub ko amoon yërmande ci miskin yi la nit yàlla dénkee day am yërmande ci miskin yi wa yukaffilul aytaam war aramil ku daan yar jirim yi la ak ñi seen borom kër faatu ñooñu moom moo leen di yaral boppam ku mu yëg ne sa borom kër faatu na day dem jëli njaboot gi daf leen ci logement yor seen dund yor seen yaay di ko dundal te amul ak yow benn relation lu dul yàlla rek la ci yaakaar mu ngo wa yukrimu dayif ku daan teral gan la cër këram bu ñu xëyoon suba bu ñu taalee cin bi cin bi kenn dootu ko teggi ci taal bi maanaam matt yi rek la ñuy yokk ak ndox mi waaye cin bi du teggeeku taal bi bu xasee tàkk moom këram bu fa cin tàkkee cin boobu dootul fayati waaye wa yablugu wa yuballigu ibnu sabil ñooñu ñu naan étranger ñooñu ñu naan doomu yoon ku tukki tumaranke bu ñëwee ba dugg dëkku ayub ba egsi ci ayub kooku tumarankeem jeex na kooku dootul yëg ni moom ndeyam ak baayam nekkatuñ ci dëkk bi lépp ayuba moo ko chargé wu noonu la meloon moom ayub wa kaana shaakiran li anumillaahi waaye nag gis ngeen mbokk yi lii lépp mu am lii lépp mu am xam ngeen lu tax mu am ko ku daan sant yàlla la ci lim ko may ndeysaan mu addiyan li xaqillaahi azza wa jal ku daan joxe àqu yàlla la subhanahu wa taala day sant yàlla waaye alal ji li ko ci yàlla sant loolu lay def waaw yombul de yàlla may la ba pare nga sant ko waaye li la yàlla sant ci alal ji nga def ko ci yombul bëri na tey waajo fi ne cëy suma amee cëy su amee ndeysaan li mu njëkk a def mooy changer kër dootul dëkk ak nit ñi changer oto changer numéro téléphone changer numéro portable bi boo ko woowee ancien numéro di jot boîte vocale léegi oto bi muy yor day tent verre yi day tent verre yi kenn dootu ko gis ci biir muy romb nit ñi de gauche à droite waaw day daw léegi nit ñi dem dëkk fu sori boo xam ne du dégg nodd fajar ndeysaan changé bu ku ko wax mu ne dëkkatuma fi gëj nañ laa gis ci jàkka ji ne non dëkkatuma fi dama toxu quoi bon maintenant je suis au ndeysaan Almadies ou Nord-Foire au Védène ndeysaan yal na nu yàlla yërëm aywa yal na nu yàlla yërëm yàlla bu nu yàlla jox alal joo xam ne dañuy daw jaamu yàlla yi ba daw jàkka ji yàlla bu nu yàlla jox ndombal tànk boo xam ne dañuy fàtte jàkka yi fàtte jaamu yàlla yi yàlla bu nu ko yàlla jox ayub kaana shakiran ku daan sant la sant la in shakartum la azidannakum yàlla nee na bu ngeen ma santee rek ma jox leen pourtant nit sax nit sa papa sax sa yaay sax su lay jox nga koy sant te waxoonoo ko ne yaay sama papa lii force la non papa vraiment gis naa ni nga ma taxawoo maa ngi lay loolu sax soo koy wax sa papa da lay jox wala nga laaj da lay jox laajoo da lay jox mais bu fekkee da nga ko war ne yow sama papa nga rek lii c'est force da nga ko war a def kañ la lay jox soo laajee su waree mais bu fekkente ne da lay jox guddeeg bëccëg ngay sant di ko gërëm du taxaw chaque jour daf lay jox lu mu yor yow lay jëkk a fàttalik wala waaw du du yoon sax ñu koy natt ci sunu borom sunu borom moom boo ko santee mu dolli la la in sakartum la azidannakum loolu moo doon melokaanu ayub mooy ku sant mu jox la mu ne mu addiyan xaqallah ku daan joxe àq yàlla la gis ngeen loolu tey lu néew la ci nit yàlla jox la ba pare li la yàlla jox ngay génne àqu yàlla di ko ci joxe te pourtant gis nga képp ko am alal alal ji nga yor def ci am benn partie boo xam ne àqu yàlla la da nga ko war a génne di ko jox jaami yàlla yi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxoon ko ci alquran xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim jëlal jëlal jëlal gis nga ndigal la yàlla jox yonent bi ni ko jëlal ci alalu gaa yi benn parti boo xam ne sarax lay doon sarax boobu day tax gaa yooyu set day tax gaa yooyu laab tutahiruhum wa tuzakkihim biha sarax day laabal alal gis ngeen histoire jàngaleen histoire u Sénégal wala àddina bi képp ku ngeen gis mu am alal te du ci génne li yàlla joxe moom fu muy mujje day feebar ba ñu yóbbu ko Europe mu faju ba yowmal qiyaamati du wér mu dee bàyyi fi alal ji xool leen li ma wax lépp laa wax seet leen histoire bi mu commencé ba fi nu nekk képp ku am alal ni nga ko amee woon daganul booy dee mujj gi du baax ku ko jële woon ci politique sàcc ko booy dee du baax ku ko jële woon ci ñi liggéey loo leen bañ leen a fay booy dee du baax jàng leen lim leen turu nit ñi yéen ak waa Ndakaaru yéen a dëkk alal ni nga koy amee na dagan soo ko amee génne ci àq bi yàlla moom nga joxe ko ndax yow gënoo kenn yàlla moo la xool ci biir jaam ñi jox la kon bi la yàlla joxee deel lool jaamu yàlla yi loolu mooy wane ne yow sant nga yàlla joxe nga àqu yàlla alayhi salaam joxe nga àqu yàlla subhanahu wa taala ndax ayub alayhi salaam loolu la doon def mu ne wa kaana ayub alayhi salaam awlaadun wa ahluna kathirun nee na bu fekkee dañuy natt njaboot gi nga xam ne nag moo leen jur ak soxna yi mu dencoon ah ñu bëri lañ doom yi dafa bëri trop lim amoon mu ne wa kaana zawjatuhu layya soxnaam bu tudd layya nekkoon doomu yaqub yaqub alayhi salaam ñaata jabar la amoon ku xam di nga am hisnul muslim ñeent yow am nga benn ñoom ñeent nuñ tuddoon ah ra rahib rahil am na ci non kuy tontu da nga yëkkat sa loxo ñeent ñëpp ku ko xam am hisnul muslim déedéet yow doom yi la jabar yi laa waxoon jabar yaqub ñeent lañu woon aawa bi mu ngi tuddoon waaw am na ci aawa baa ngi tuddoon ñaareel bi moo tuddoon layyaa mooy yaayu aawa bi moo tuddoon layyaa aawa bi moo tuddoon layyaa ñaareel bi moo tudd raxiil mooy yaayu yusuf ñeneen ñaañi duma ko wax yow ñeneen ñaañi duma ko wax yow yow ko fàtte duma ko wax de yeneen ñaari ñaareel bi moo tuddoon raxiil aawa bi moo tuddoon layyaa gis ngeen kon yaqub tuddee na aawoom doom doom jooju la ayuba takk jabaram boobu tudd layyaa muy ayub moom tarfulu fi hadihi naim moom xam na ne xéewal gi jëkkëram am yàlla moo ko may moom xam na loolu moom melul na jigéenu tey non sama jëkkër technocrate la boroom xam-xam la wala technicien la wala ingénieur la wala wala wala wala wala déedéet moom dafa xam ne boroom këram alal ji mu am yàlla moo ko may subhanahu wa taala moom ndaw si mu taxaw di santale boroom këram yàlla ci alal ji moom melul comme jigéen ñi tey xam ne bu seen boroom kër are amee fu ñu génn di wane ne seen boroom kër dafa am moom li neex boroom këram ci alal ji mooy nañ ci sant yàlla moom ndaw si ci loolu la taxaw di ko santale yàlla subhanahu wa taala waaye aabidan aarifa xaq allah ala ibad ndaw si dafa taxaw di jaamu yàlla di sant yàlla di dimbali jëkkër ji ci alal ji nuñ ci sante yàlla ak nuñ ci jaamoo yàlla ci ak ki jaami yàlla yi gis ngeen noonu borom kër gi di di soññe nit ñi pour ñu joxe nit ñi lekk lekk gi buñ koy togg jabar ji moo koy jiiti tey ñun ñi am alal ci sunu ruqi ruqaar yi seen añu kër sax duñ ko togg du ñu fóot du ñu paase du ñu du ñu du ñu du ñu lépp dañuy toog rek muy ñor ñuy lekk muy sedd ñuy naan ñuy lal ñuy tëdd oto di gaare ñuy war di doxi seen soxla jigéen ju baax nag mooy kuy liggéeyal boroom këram di liggéeyal boroomam doonte ne dafa am alal ñaq bi jigéen di tuur ndax jëkkëram kenn xamul ñaata kontaneeru tiyaaba la mais bu fekkee jigéen ji du defal borom këram tus loolu lay toog yenn saa yi sax borom kër gi wàcc ñu ne mbindaani eh yóbbu leen ko añam bi ñooñu ñoo koy tàngal yóbbu eh may leen ko ndox mu naan eh defal leen ko ndox mu sangu yow yaa ngi tëdd rek doo am benn tiyaaba puisque yow sa ñaq tuuruwul ngir sa borom kër loolu moo tax gis ngeen tey barke jeex ci sëy yi sëy yi nit ñaa ngi sëy de da ngay am jabar de waaye barke moo jeex ci sëy yi gis ngeen ñu njëkk ñi lan moo tax ñu raw parce que sëy yi dañoo amoon barke jigéen ñi dañ doon sonn ngir seen borom kër yi ngir yàlla di jaamu yàlla di topp yàlla ci seen borom kër yi dégg ngeen ñu ne démb ci jamono yonent ak saxaaba yi su su nit daan xëy ndaw si da lay gunge ba ci buntu kër gi ne la ragalal yàlla ci ñun ittaqillaha fiina ragalal yàlla ci ñun ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara nijaay yaa ngi nii di dem lépp loo indi ci kër gi na dagan démb loolu la borom jigéen ñi doon dénk seeni borom kër yaa ngi nii di dem lépp looy indi ci kër gi na dagan ndax ñun mën nañoo muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara ngal la bul indi safara ci biir kër gi gis ngeen tey kan mooy wax loolu sa borom kër yaa ngi nii nag dañ laa fal na nga ñàkk fayda nag gis nga fii kuñ fi fal loolu lañ lay wax nga defee nga profité alal ji gas ay pax lenn li nga yóbbu ko Europe lenn li nga gas ay foos branché ci ay frigo courant dugal ci ay millions tey loolu la Sénégal am problème ne dégg ñu ne xaalis bi gars yi yóbbuñ ko fen mu ngi denc seen biir kër yi gas ko ay foos branché ci ay frigo dugal ci 10 000 yi ndax du du lax loolu ngeen di dégg tey ñoo leen yàlla musal waaye ndaw si fa kaanat faqad kaanat tashkuru alhamdu wa shukru wa sana ala allahi azza wa jal allahu akbar moom ndaw si ku daan sant la ku daan gërëm la ku daan delloo borom bi subhanahu wa taala njukkal la ci alal ji nga xam ne yàlla moo ko wërsëgal moom soxna si moom ak ay doomam ak borom këram doomam yu góor ak doomam yu jigéen te daan leen doon wax ne alal ji yàlla jox seen baay yàlla daf ñu ko jox ñun ñëpp pour ñu jege ko ko pour mu nekk taqarruban ila allah pour ñu jege yàlla allahu akbar allahu akbar bu la nit mayee oto pour lan moo tax mu may la ko pour sa coono jeex bu la nit tabaxalee kër lu mu bëgg su la nit mayee alal lu mu bëgg yàlla daf leen may alal ji pour ñoom ñu jege yàlla alal ji la yàlla jox da nga ciy jaamu yàlla ba jege yàlla subhanahu wa taala nee na la moom ndaw si loola doon wax waa këram mu ne leen wa awsaw alayha ala zawjiha min arrizqi shay'an mubarakan muy wax doom yi dimbali leen seen baay ci tas alal ji dimbali leen ko sant la ko yàlla ndax alal ji barkeel wa faddalahuma ala kasirin mimman xalqihi mu ne leen delloo leen yàlla njukkal ndax kat yàlla bi mu leen di jox alal ji gis na fi ñépp waaye mu tànn leen yéen rek seen kër gi si yéen rek ak seen baay kon nag sant leen yàlla ndeysaan gis ngeen ndeke alal boo ko amee bul ko yemale rek yow ci sa bopp xam ne yàllaa la ko may waaye sa soxna na xam ne yàllaa leen ko may waaye doom yi tamit nañ ko xam fi mu nekk nii ci Sénégal borom alal yépp est-ce que seen doom yi xam nañ alal ji seen yàlla yàllaa ko may seen baay déedéet dañuy wax ne suñu papa ministre la moo tax ñu am alal suñu papa nangam la suñu papa nangam la suñu papa nangam rek kenn du leen dajale naan leen alal ji ñëw tegu seen loxo na ngeen xam ne seen baay du ëpp doole du ëpp xam-xam yàlla moo ko jox loolu moo tax comme du ñu won nit ñi du ñu won xale yi alal ji ñu won leen ci yàlla lu ñuy def bu ñu ko sàccee dañuy baali dañuy dégg kuy sàcc gis naa dégg naa benn doomu borom alal joo xam ne milliard la sàcc papaam di ci luwe ay booyin di baali turk guddi gu nekk mu luwe booyin dugal ci ay xaritam ñu dem turk baali milliard mu baale ko ba mu jeex tàkk waaw semaine bu nekk mu dem Turquie di fa fecc loolu ngeen di gis fi waaw ñii ay millions la ñuy sàcc ñii dañuy dajj seen koofar fooru bàyyi parce que kon xalal baa ngi ci biir kër yi chaque jour ngeen dégg ministre député sénateur nangam nangam xalifa général sax boo xam ne dañ doom yi dañoo sàcc alalam dégg naa benn xalifa boo xam ne doom yi dañ ko drogué sàcc xaalis bi yóbbu ko ah ataaya bi ñu ko doon jox mu naan lañ ko defal drogue mu naan ñu ñëw yóbbu malet bu xaalis bi ba léegi xaalis bi nga xam fu ay milliards gis nga comme joxuñu ko jaamu yàlla yi ñu lekk seytaane lekk ko jaamu yàlla yaa ngi nii sonn bay bëgg dee tey boo duggee ci hôpital yi Sénégal yi nga gis ñoo xam ne amuñu ordonnance ndeysaan chaque jour nga dégg ci rajo bi ku feebar koo xamante ne amul ordonnance mosquée bi ñaata nit ñoo fi ñëw par jour di ñaan dimbal soo jaaree ci mbedd mi gis nit ñi fanaan ci ay carton soo jaaree ci mbedd mi gis ndeysaan nga ku naan la sëñ bi doom may foofu ñaar fukk ma jënd fondé dem ba léegi lekkuma waaw may foofu fukki dërëm sax ma jënd café naan chaque jour dëgg dañ lay ñaan ba sa yaram di daw nit ñi yor ay milliards nit ñi denc ko kenn du dimbali kenn du dimbali miskinu yàlla yi moo tax yërmande moo fi jeex yërmande moo jeex ci biir réew mi ayub nag moom li ko yàlla dimbalee woon mooy soxnaam xamal doomam yi mu jur ne leen seen baaykat alal ji ko yàlla may ëpp fi doole ëpp fi xam-xam waaye yàlla moo ko baaxee kon yéen doomam yi sant loole santale leen yàlla seen baay seen baay buy sant yàlla ànd leen ak moom sant yàlla liggéey bi muy liggéeyloo jaami yàlla yéen jiitu leen ci yenu leen saag yi yenu leen togg yi yenu leen ndox mi yenu leen yenu leen yenu leen dugg leen ci gox bi na ñépp lekk na ñépp naan kaanat la yaa tudriku ann sharafa baqaai nicma huwa shukru lmunim gis ngeen moom ndaw si xamoon na ne bu baax sekkere bi nga xam ne moom mooy tax wër sëg wi des fi mooy mooy sant yàlla yàlla bu la mayee wërsëg boo bëggee wërsëg bi des ci yow sant ko sant ko boo koy sant rek wërsëg bi di fi nekk du fi bouger maître te day barkeel day set day yokk waaye bu fekkee yàlla dalaa jox ngay won ne yow yaa ko jox sa bopp wala nga naan lii sama liggéeyu ndey la wala lii sama góorgóorlu papa la wala lii sama diplôme la jàngeen histoire Qaaruna alal jooju mu yu mu amoon yàlla lu mu wax lu mu lu yàlla nettali ci alquran inna Qaaruna kaana min qawmi Musa fa baga alayhim wa ataynaahu min alkunuzi ma inna mafatihahu la tanuu bi ulil usb lan la wax ba mu génne keroog gaa yi naan ko ragalal yàlla ci alal ji mu ne innama utiituhu ala ala ilmin indi wala bu yemoon ci ala ilmin sax garaaw mii mu ne indi gis ngeen alal ji dañ ma koo jox parce que man technocrate la dama am xam-xam waaw dama compétent dama lii dama laa allahu akbar mu génn ci yàlla tamaaman waaw yàlla xamal ko nag di nga xam ne du sa xam-xam di nga xam ne man mi man maa la ko jox waaye du sa xam-xam kon ndaw si muy layaa xam na ni secret gi tas gi tax alal di des ci boroomam mooy sant yàlla fa kaana daaimatu zikri walhamdi tuaddi ila ku ila kulli zi xaqin xaqan gis nga moom ndaw si chaque jour daa iman foo ko fekk mi ngi tudd yàlla mi ngi sant yàlla mi ngi tudd yàlla ci làmmiñam mi ngi sant yàlla ci ay jëfam foo ko fekk mi ngi santale borom këram yàlla di ànd ak moom di tudd yàlla ci alal ji yàlla jox leen alal ji ñu mu ngi ci taxaw moom ndaw si di ci génne ak yàlla ji yàlla am ci alal ji ci jaam yi mu taxaw di ko génne di ko jox jaamu yàlla allahu akbar borom këram taxaw ndeyjoor di joxe moom mu taxaw càmmoñ di joxe loolu néew na tey ci jigéen ñi tey de ah fii ku sa jëkkër am alal looy profito mbaa yow jënd nga or mbaa am nga armoiru sibata mbaa am nga duubul li mbaa am nga mbaa sa doom yi fexe nga leen am nu la leen dencal mbaa sa doom yi fexe nga ñu tukki loolu rek mbirum àdduna rek looloo yàq tey réew mi mooy nit ñi seen am am yëpp xalaatuñ ci yàlla waaye luñ ci xalaat mbirum àdduna tey damay lire sama fa sama sama page Facebook ñu envoyé ma benn message ci Ibrahim bun Adham Ibrahim bun Adham kenn la ci gaayu yàlla yi benn sàcc dafa dugg këram di sàcc waa ji dugg wër kër gi yëpp ba sonn gisul lu mu sàcc ibrahima ne ko am nga loo jël mu ne gisuma lu ma fi sàcc mu ne ko fii mbiru àdduna nekk fi mbiru àllaaxira rek a fi nekk comme comme gisoo fi mbiru àdduna te ngaa ñëw ma jox la ci mbiru àllaaxira yi fi nekk waa ji ne ko bismillah mu ne ko demal nga jàpp waa ji dem jàpp mu ne ko jullil ñaari raak waaye julli ñaari raak ñu nodd mu ànd ak waa ji jëm jàkk benn waaye ne ko ah waaw kii xanaa du sàcc la woon mu ne waaw dafa ñëwoon di sàcc si ma sàcc ko déggu leen wax bi de waaw dafa ñëwoon di sàcc man ma mujj ko sàcc waaw moom doon sàcc alalu àdduna man ma sàcc ko jëme ko ci yàlla ndeysaan gis ngeen ñooñu waa ji lu la ko wax da nga doon sàcc ne ko waaw ba am nga loo jël mu ne ko gis ma fi dara mu ne ko fii amul mbiru àdduna mbiru àllaaxira rek a fi nekk xanaa bëgg nga ci mu ne ko waa jox ma ji mu ne ko demal nga jàpp gis nga ñi même sàcc yi sax dañ leen doon defar ñun mënuñu defar nit ñu baax ñi sax waxuma balaak sàcc yi gis nga mu ngi ni dëkk baa ngi ni ñu jub sax mënuñu leen dara waxuma laak ñun ñi dëng ñi am nañ yàlla jubal mbokk yi moom soxna si fatawaasa ibadallah wa tabarra bihim wa tuxsinu ilayhim wa tastaniru bi dalika fi dawi irshadati zawjiha nabiyullahi ayub alayhi salaam nee na ndaw si nekkoon na di jokk jaamu yàlla yi ci alal jooju yàlla jox borom këram wa tabarru bihim muy baax ci ñoom di mokk ci ñoom wa tuxsinu ilayhim muy rafetal ci ñoom waaye nag loolu yépp est-ce que ci xalaatam la koy defee est-ce que ci pexeem la koy defee est-ce que ci mën-mënam la koy defee déedéet wa tastaniru bi zalika fi dawi l irshadat zawjiha ay orientation yu ko borom këram orienté ne ko alal ji dee ko defee nii dee ko joxee nii deel waxee nii deel defee nii li ko borom këram wax dara du ci wàññeeku noonu la koy jaaralee lu tax pour ñu mën a am tiyaaba ndax borom këram yonant la borom këram moom yorul ay xalaatam moom kese waaye li yàlla wàcce ci moom ne ko defalee ma ko nii noonu la ko yàlla noonu la ko borom kër gi di defee gis ngeen yonent bu nekk dafa am lu ko yàlla may dafa am kiimtaan gu ko yàlla jox ibrahim gis ngeen li ko yàlla joxoon Moussa gis ngeen li ko yàlla defal Yuusuf gis ngeen li ko yàlla defal Haaruna gis ngeen li ko yàlla defal Ayub gis ngeen li ko yàlla defal ah mooy lan mooy lii mu am alal alal ji ci moom moom lay jaamoo yàlla ku nekk rek yonent bu nekk ak mbir bu ko yàlla jox ku nekk ak lu la yàlla jox moom lan la ko yàlla jox mu yore alal ci alal ji ni mu koy joxee noonu la nit ñi di wuyusee ci yoonu yàlla subhanahu wa taala gis ngeen ah yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalam lan la ko yàlla jox alquran alquran bi moom lay indee nit ñi ci yoonu yàlla isa lan la ko yàlla joxoon kéemtaan kéemtaan gi moom lay indee nit ñi ci yoonu yàlla ubrisul akmaha wal abrasa bi iznillah wa uhyi mawta bi iznillah damay wëral ngaana di xippiloo ko gumba di dekkil ku dee waaye defuma ko ci sama kàttan de maa ngi koy def pourtant xool mënoon na noppi foofu de naan damay xippiloo ku gumba di wëral ku gaana di dekkil ku dee bi izni waaye waxul bi izni de lu mu wax bi iznillah si ngeen parce que ñoom dañuy dégager seen responsabilité lu nekk dañuy bëgg yàlla feeñ ci mais ñoom bu ñu feeñ noonu la nit ku baax di def lépp da ngay bëgg yàlla feeñ ci mais yow bul ci feeñ ndaw si tamit ci ay jubanti ay orientation yu borom këram di joxe ci lay sukkandiku bi ci leerlu bañ a wuuteeg borom këram wa fii yawmin min al ayaam ndeysaan benn bis ci bis yi jamono ñoo gis waxtu woo gis at bu mu nekk wala weer wu nekk wala wala day am bis ci bis ku nekk am nga benn bis ci bis yawmun wa fi yawmin min al ayam benn bis ci bis koo gis rek ci nit yàlla yi koo gis ci gaa yu baax yi am nga benn bis ci bis lu sax wa tilka al ayamu nudaawiluha bayna annas bis yi noonu la yàlla da koy tourné ci biir nit ñi ku nekk rek sa bis a ngi ci bis yi tey nag bésu ayuba ñëw na wa fii yawmin min al ayaam ndeysaan benn bis ci bis yi bi ñu tàmbalee darsi ba fii ñu yem lan lañ doon wax ci ayub ah lu neex rek wala est-ce que kenn dégg na fi lu na xari léegi nag wa fii yawmin min al ayaam bis yaa ngi commencé tourner benn bis ci bis yi ñëw na ci moom jaahu ahadu abidihi kenn ci jaamami daal di ñëw ci moom li yuxbirahu anna waladan min awlaadihi qad maat di ko xabaar si di ko xamal si benn doom ci doomami faatu na ni mu ko waxee loolu ayuba daal di muñ fa sobara ndeysaan mbir yi tàmbali na de fa sabara mu daal di muñ yégalu ko yaramam waxtasab mu takku wa zalla awlaaduhu yamuutuun ñu xëyaat suba keneen dee fa sabara waxtasab mu muñ takku ñu xëyaat suba keneen ki dee mu muñ takku ñu xëyaat suba keneen dee mu muñ takku ñu xëyaat suba keneen dee saa yu ñu xëyee suba kenn dee ba doom yi jeex takk deseetul doom bu mu jur ci biiram ñépp dee waaye ñu xëy suba rek dina am doom ju mu suul ñëwaat toog ba ñu mujj ko miin bu ñu xëyee duñu génn dañuy xaar am ku dee ñu suuli ko buñ ñëwee rek mu ne leen nañ muñ delluwaat ci liggéey yi dem sant yàlla ba doom yi jeex tàkk mu sax di muñ di sant borom bi subhanahu wa taala rikkiliwul ci ngëmam bàyyiwul lim doon def lu toll ne tarfatal ay lu toll ne seconde wàññiwu ko ci ci ngëmam bal wa fi nafsil waqt mu ne ci waxtu woo ñuy wax ak ñoom moom kaanat almawaasi wal agnaam wal xayl tamuutu amaamahu gis ngeen bi doomi jeexee jur yi ñoo commencé benn épidémie moo ñëw rek daal di ravager jur yi xar yi béy yi nag yi di këpp ci kanamam mu taxaw di xool nii la leen di gisee ñuy daanu yenn saa yi sax nga gis sa jur buy daanu mën ngaa rendi ndax nga dabaatal am yàpp waaye xam nga ne ay ay centaine suy daanandoo di dee ndax loolu am nga loo ci mën a rendi lépp dee ba amatul benn kawar kawar amatul kawar kawar waxuma leen derde amatul sax kawar gu mu moom kawar ci koo xam ne lim moomoon kenn xamul nu mu tolloon loolu yëpp daal di dee ndeysaan mu daal di muñ daal di takku delloo yàlla mbir yi lépp dee waaw xatta faniyat jamian ba yëpp jeex takk waaye wa huwa sabirun muhtasibun mi ngi muñ mu ngi takku wabtuliya lu des wabtuliya fi jasadihi bi anwa'in min al bala mu commencé feebar ci yaram bi ay feebar commencé ko dal yaram bi yépp daal di feebar walam yabqa minhu uduwun salimun siwa qalbuhu wa lisaana dara dañ desatul ci yaram bi fu feebarul lu dul xol bi ak làmmiñ bi yeneen cër yépp a feebar cër yi dañoo mujj ràmm weyi deñ xef yi deñ tuñ yi xar tànk yi xotteeku yaram bi di dagg di xappatiku ndax feebar bu mu feebar ñaari mbir ci yaram bi moo feebarul mooy làmmiñ bi ak xol bi ñaari yooyu rek ñoo ci des yeneen yépp foo xool rek da ngay daw ndeysaan yal na yàlla bu ñu yàlla natt mu ne wa huwa fi zalika kullihi ci loolu lépp nag saabirun mu ngi muñ muxtasib mu ngi takku zaakirun lillahi mu ngi tudd yàlla azza wa jall fii laylihi wa nahaarihi wa subhihi wa masaa'ihi mi ngi tudd yàlla suba mi ngi tudd yàlla ngoon mi ngi tudd yàlla guddi mi ngi tudd yàlla bëccëg 24 heures sur 24 làmmiñ bi du noppi xool bi du tranquille lu dul rek mu ngi tudd yàlla subhanahu wa taala gis nga loolu moo tax làmmiñ bi ak xol bi ñoom rek ñoo des ci yaram bi wa taala maraduhu feebar bi yàgg def ay at ay weer ay semaine ay bis ay waxtu yu yàgg wan qataa anhu nas ñépp daw loolu mooy àdda nit ñi mooy buy tooy rek ñuy tag muy ñor ñuy lekk muy nooy ñuy toog bu mettee ñu daw ba pare nag naan noo dafa soof ah xamoon na ko moon jéema wone woo ko tiitaru gis nga de ñépp daw ko kenn desatul kenn ñëwatul ci moom ñépp daw noonu ñu doon songe këram noonu mu doon jàppalee jaamu yàlla yi noonu la ko jaamu yàlla yi bàyyee tey walam yabqa ahadun yaxnu alayhi siwa zawjat amul kenn kuy am ci moom yërmande may ko ndox mu naan wala wëlbati ko sax sàng ko benn morso wala sax jox ko guuxu ndox lu dul jabaram ñépp dem ba mu des jabar gis ngeen moo tax booy ut jabar utal jabar ju baax jabar dañ koy tànn léeg-léeg ma ne xale yi ku kuy jënd daal dem marché nooy def mës nga jënd daal mës nga dem marché jënd daal dangaa ñëw rek jënd noo def waa tànn mës nga jënd tisi bi nga demee noo def tànn allahu akbar mës nga jënd oto dangaa def tànn gis nga de looy def da ngay tànn même mbax na sax boo koy jënd da nga naan ay kaay mu ñëw ngay jël xool waaw mu ngeen gisee bii mu jox la seetu non ma xool bee même verre sax booy jënd da ngay tànn même portable sax booy jënd da ngay tànn wala lépp looy def da ngay tànn booy jënd kër sax da ngay ñëw di xool di waaw ñu ne la am na beneen bu nekk fii la nga nañ dem ma xool booy luwee sax da ngay waaw ngay takk jabar tànnoo nga dajeeg moom ci mbedd mi rek ñu ngi xeesal ba xonk cuur ñu ngi takk ay cheveux indien rosa gémmi ngi ba mu xonk cuur sol ay dàll cap sol ay ray ray ngeen daje ci jeu de lumière yi courant bi naan ciw ciw ciw nga xool ko rek jommi nga dem takk nga dem dugg ci ñetti fan da ngay ñëw ne oh papa vraiment moom problème quoi parce que femme bi daal il m'a elle m'a trahir quoi parce que yaa ko def yaa trahir sa bopp kenn trahiru la yaa tànnul yonent dina ne woon iyaakum wa xadara u diman maa ngi leen di moytandikuloo nataxu gattaxu sën nataxu gattaxu sën xam ngeen lool kuy firi loolu bismillah
comme lu sax ci sën voilà mooy benn dugub benn mboq wala benn naajo bu sax fu ñuy tuur mbalit nu muy def day jóg brrr naat verte génn fleur ku ko romb ne iy way fii di ku fi ji di nga am tool waaye ay kuy xaar lekk fleur ci fleur lay yem de du am gerte du am dugub du am dara gis nga fleur boobu ci nga yem rafet rek gis nga amul njëriñ booy takk da ngay takk tunkihul mar'a li arba li maaliha wa li diiniha wa li nasabiha wa li jamaaliha yonent bi ne fasfar bi zaati diin taribat yadaak yonent bi ne kuy denc dencal jigéen ju am diini imam ahmad radiallahu anhu wa ardaa bi mu waree takk soxna dañ ko tànnali jigéen dañ koy tànn gaa yi jaamu tubaab dañ naan compagnon da ngay dégg mu ne waa ji ne maa ngi tànn sama compagnie de lan comme xaw ma ne compagnie de ma vie xaw ma ki may àndal sama dund xoolal ki nga war a àndal sa dund ba sa dund jeex mu dee mbaa nga dee kooku tànnoo ko nga dem def ko for rek def ko benn sagar bu ñu for ci mbedd mi te yow lépp ci ay objet objet affaire àdduna yi da nga doon tànn wala ngay tànn dàll yeeg yére yeeg kër yeeg kuddu gi sax kuddu gi ngay lekk sax da ngay tànn da ngay dem marché naan ay ma xool kuddu bee ñu jox la nga ne non non bi chinois la ma xool bële nga dem bool yi sax da ngay tànn kopp yi ngay lekkee sax da nga doon tànn jabar ji nga war a àndal dundal ak moom àdduna war a nekk ak moom àllaaxira tànnoo ko ki war a jur say doom tànnoo ko moo tax lu ngeen gis ngeen bu ngeen dégloo rajo boobu émission boobu tudd tës loo ciy gis musiba rek musiba rek sama jëkkër sama jabar sama jëkkër sama jabar sama jëkkër sama jabar sama jëkkër sama jabar rek ngay dégg parce que waaw da ngay dégg benn femme démb mu ne waa ji def ma takk cinq quinze jours lañ def mu dem yoonam gisatuma ko mi ngi ni bàyyi maa ngi ëmb quinze jours dan ngeen kañ ngeen xamante quinze jours xanaa da ngay dégg yow xanaa ki la takk xamoo ko woon non xaw ma ko dafa ñëw rek waaw loolu nuñ koy defee koo xam ne waaye Sénégal ak neex rek yonent bi ne na nga tànn iza raaytum man tardawna diinuhu wa xuluquhu fa zawiju la su ngeen gisee waa joo xam ne jikkoom ak diineem doy na leen su ngeen gisee koo xam ne jikkoom ak diineem na la ñuy xamee jikkoom ak diineem dañ koy tànn testé ko xool ba ñu xam ne kii jikkoom doy nañ ñu ne waaw kii mun nañ koo may waaye benn waaye ñëw tey rek gaare kat kaatam xamuñu fu mu riire xamuñu ndax raaskat oto la dañ ko jox 4x4 bi rek mu dawal ko ñëw fii di leen doser fekk moomu ko fooy liggéey mu ñëw naan building ndekke fële mu ngi liggéey ñaari yëkkati kenn dugg problème nañu ragal yàlla gis ngeen ayub ñëpp a ko daw ba mu des jabaram jabar ju ñëpp daw ba mu des moom kenn xam ngeen ne jabar jooju am na lu mu am hmm? am na formation am na diine ñëpp daw jabar ji rek des fi ñëpp allahu akbar mu ne ayuba dem wa daafa xaalahu kaanat tara lahu xaqahu jabar ji moo doon sàmm aqam wa taarifu qadimu ihsaanihi ilayha jabar ji xam man kii fan la tolloon ci man démb lan la ma doon defal fan laa jaar ak moom gis nga dafa am mbir yoo xam ne nit warta goree ci jaar ak nit yenn place yi mu toll ci yenn melo yi mel ni melokaan yi nga daw dafa am benn paa bu doon jàngal doomam bu am alal xam nga souvent boo amee alal doo am xarit ndax ñëppay ñëw léegi nag bu ñëpp ñëw yow sooy présenté looy wax ñii ñëpp samay xarit lañ waaw bi ne ko ah ñii ñëpp ah ñii duñ sa xarit de wallaahi papa ñi sama xarit lañ ñii ñëpp ko ah baax na ñim ñi ñibbi papa ji ne ko xam nga nooy def da ngay rey xar mi sol yére yu weex bi sangoo deret bi nga yor paaka bi nga daw fëgg sa xarit yi kenn kenn nga ni ko damaa rey nit mu ne waaw mu ne ko di nga xam ñan ñooy say xarit xale bi ñu indi xar mi rendi ko dékk deret ji ba deret ji yépp jeex mu sol yére yu weex sotteeku ko jël paaka bi daw minuit mu fëgg première xarit bi kooku ne kookan la mu ne ko diw mbaa jàmm la mu ne ko du jàmm lan la mu ne ko ubbil mu ubbi gis waa ji xonq cur yor paaka bi lu xew mu ne ko damaa rey nit ne ko boo reyee nit nag léegi nag mu ne waaw mu ñëw fii pour pour nga ba nga dimbali ma fu mu ne nu ma lay dimbale nga rey nit amoo fenn booy def si lu sama kër léegi yow loo bëgg waaye waay damay nelaw génnal daal di xëcc buntam tëj mu dawaat ci keneen ku mu fëgg rek kooku ne ko kookan la mu ne man diw mbaa jàmm la du jàmm de lan la damaa rey nit ubbi gis ko mu xonq mais dëgg la yow da ngaa rey nit ah wax dëgg yàlla waaye nag man loolu mënu ma ci dara de noonu dama bëgg nëbbatu sa kër sama kër mu génn noonu ba mu des kenn bi mu ñëwee fëgg koo kooku ubbi lan la damaa rey nit mu ne ko léegi nag mu ne ko na ma bëgg nëbbatu fii mu ne ko déedéet dañuy daw génn dëkk bi balaa fajar jot ndax bu fajar jot ñu suñu jàppee dañ ñuy rey rek ñu daw ñoom ñaari départ ñu fanaanee daw guddi gi waa ji nekk ànd ak moom rek ñuy daw ba ñu yëg ne fajar a ngi waaj a jot rek waa ji daal te tëdd di sànni paaka bi tëdd di reetaan waa ji ne ko lu xew yëpp dafa defe ne dafa dof ndax ku rey nit waa ji ñëw di ko yëkkat ne ko jugal dañ ñuy dab waa ji di ree ne ko non reyuma kenn mu ne ko reyuma kenn te nga xonk cur yor deret yor paak koy danga rey nit mu ne ko non mu nettali ko chaîne bi dama bëggoon xam kan mooy sama xarit waaye dëkk bi xam naa ne yow yaay sama xarit borom xam-xam ne nañ inda shadaidi tu'raful ixwaan ci jamono tartari la ñuy xam xarit xarit boo amee lu métti nga koy xam da ngay gis tey jigéen ñi ah mu nga allahu akbar gis jigéen yoo xam ne borom këram dañ ko wàññi fu mu doon liggéey rek premier jour rek ndaw si ne ah waaw xam nga man wax dëgg yàlla mënumaa ndekkee fonde mënumaa reere sombi ama dem sama kër papa waaw ma affaire yi ak a ñoo gareeti commencé génne la ay jikko yoo xam ne kenn xamul jikko yi fu ñu nekkoon ba yow da ngay tiit dafa ne kii xanaa du ki nga doon nekkal fii bis bu nekk nga gis yeneen melokaan loolu du du diine loolu du ngor loolu du jom loolu du nite nit day gore boo ànd ak nit muy mën bu demee ba tële na nga na nga taxaw ci wetam su feebaree na nga taxaw ci wetam nga koy jàppale guddi ak bëccëg mbokk yi insha allah fi la ñuy yem ba darsa bi di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu